di leen bëggee bu baax di leen ziar di leen baal ak te di leen baal kon niñ koy defee rek à chaque fois seen émission jàngat lamb doorati na ma fas yéene ci ànd ak suma chéri suma xarit suma compagnon de guerre muy jiili mi nga xam te ni maa ko bëgg sama bopp te ku may bëgg bëgg maa hmm. la <laughs> que xam naa ni dafa maa bëgg maa la raw nuyu képp bépp internet buy seetaan wasaare lamb ñu lay nuyu bu baax di leen jaajëfal Eh, ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd nañ ko ñoom ma ànd ceeg sama séeréer sax soxna Fatima ma bëgg la nga bëgg ma. waaw ñun ñaar moom dañoo bëggante. bëggante la affaire yi seetaan sax xam nañ ci dara. waaw. Mhm. bàyyi ji kon niñ koy defee rek mhm. tey nag ñu ñëw ci benn euh, écrit boo xam te ni écris ay xale dongu dongu dongu ñoo fa nekk. Mhm. écrit boobu ko jiite sax booy la. mën nañoo xam ne sax suñu moroom la. kon nga xam ne kooku du mag. muy écrit jaxaay bennoo. Mm-hmm. mu nekk écurie boo xamante ne nag benn écurie la woon mu jaxaay bennoo ak jaxaay mbooloo. Mm-hmm. ñu nekk ndax ñoom ñëpp jaxaay lañ dëkk. Mm-hmm. ñu dem ba benn instant ñu séparé wu jaxaay mbooloo jaxaay bennoo. mais tey nag jaxaay la ñuy waxtaanee. ñu def neuf combats cinq victoires quatre défaites mooy bilan bi. Euh, tey. Euh, neuf combats euh, cinq victoires quatre défaites. jaxaay bennoo. li njëkk mooy soxna jaxaay bennoo euh, daanaka mën naa wax du écrit bu yàgg parce que boo xoolee bu matee deux ans ci layam mais am na ay xale yoo xamante ne ñu ngi fa am jom lool mën ni ñuy def xëy na nag ñàkk a déggoo euh, mooy waral lu bari mu doon loo xamante ni am na parce que buñ ne écrit jaxaay euh, dañuy doon benn bopp boo xam ne kenn mënu koo xarñaar ñaar malgré ñoom ñëpp nag dañoo ñàkk déggoo ci seen biir ba tax ku ci nekk berso daara bopp mais rawatina couleur jaxaay rek la ñuy défendre ñoom ñaar kon ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne moom la ñuy défendre mu am ay xale yoo xamante ni euh, ñu ngi fa euh, ci jaxaay bennoo bi di ci wane seen bopp di ci góorgóorlu euh, am na ci xale boo xamante ni macha allah bu ñu ko jàppalee fépp foo xamante ni dégg nañ fa champion dinañ ko fa dégg ndax yaa ko gën a xam nu mu tudd kooku. waaw soq de kooku yaa ma gën a xam ndax ci booy yooyu ngay dox. <laughs> soq de mu nekk xale boo xamante ni soxna Fatima. lépp yi mbër dama koy gis ci moom boo gisee taay bi boo gisee bëre bi boo gisee macha allah surtout jom gi nga xamante ne xale bi daf koo am ci làmbam mbër nag euh, des fois euh, lépp lu koy def champion ci lay dox mais fi mu toll nii moom ci lépp lu koy def sampion mu ngi ci xaw ma nag ba xam bu demee ba ci kanam fu muy mujjëm déet mais fii mu teg tànkam moom soq de fii ak mu ngi fi rek euh, bu góor góorloo lépp lu mu bëgg ci làmb dina ko am gis nga keroog làmb bi mujjee bëri arène nationale gis nga turandoo bi ñëw euh, ànd ak moom euh, wane ni carrément cër bi moo jox dama la koy delloo te malgré kii ma nga dëkk Pikine kii ma nga dëkk Jaxaay moo mm-hmm. lay wane ni làmb cofeel ak bëggante ak ak ak yéenante seen biir yàgg na ci làmb mm-hmm. xam nga tey soq de ku mel ni moom bu ko beneen làmb bu ko làmb boole woon ak beneen mbër boo xamante ni mu ngi nekk xam sa cosaan day jël mais làmb du leen mës a boole moom turandoo mhm. parce que li tax mooy kilo tuddee boppam la ma doon wax rek desee la tudda dara euh, mu doon xale boo xamante ni taxawu ak jàppale buñ ko ko defalee dina dem def nañ nag cinq victoire quatre défaites mhm. daanaka mun naa ni euh, xale yi ñëw fa parce que équipe bi daanaka ñëpp ay xale lañ mais bu ñu defee deux ans am loolu mun naa parce que deux ans la ñu def am cinq victoire quatre défaites. ba pare amaat yeneen combat yoo xam ne Covid bi. yeneen combat yoo xam ne Covid bi moo ko yàq. kon ñoom bu ñu gënee góorgóorlu seen tànk fi ñu koy teg ci làmb euh, dinañ jëm fu kaw fu fu kawee ci kanam. ci kanamu làmb rawatina jaxaay bi nga xamante ne fu ñu leen tuddee dinañ leen fa tudd. kon ñu leen gën a góor lool rek di leen wax ñu gën a góor góorlu gën a fasaat jom euh, gën a nekkaat ci li ñu war a nekk parce que xam ne jóge ci écurie ber sa daara bopp yombul. mais nañ gën a góorgóorloo xam ne ñoom ñëpp benn lañ muy ikiri jaxaay muy muy jaxaay bële ak jaxaay mbooloo eh, jaxaay jaxaay bennoo jaxaay bennoo bébé liiru jaxaay yooyu yëpp benn la rek parce que ñoom ñëpp jaxaay la ñuy défendre mm-hmm. kon mu doon loo xamante ni vraiment soxna faatiment kontaan naa ci bu baax a baax a baax ci palmarèsu xale yi ñu leen ñaax rek ñu gën a góorgóorlu. ñu leen di ñaax ñuy gën a góorgóorlu. Mm-hmm. góorgóorlu ñuy fàttali seen victoire caatu Linguère moo fa daan. sopp mm-hmm. de ak mm-hmm. Yaaxam ak Ibozo Ibozos. seen quatre défaites nag xës dari la. Elton bu jaxaay Saa Kajoor ak Tigre ñoo ñoo fa daanu. mais ñuy wax ba léegi kon fi nga wax rek ndax sopp de moom. keroog esat tey bu ñu demee tey boo koy dugal ci euh, tey gis nga ban tàmbaa bi tamit mm. demoon na benn instant ci prise yu gën a kii ci prise yi ci la bokk mm. te li ñuy wax rek nit moom euh, reporter wala journal mbër sax amul mm. mais xale bi dafa ñëw wane boppam te bu ndaw moom mu nekk fa leader moom moo nekk instant bi tête de bi kon nga xam ne xale la mais am na jom ndax euh, nit moom kon li nga wax rek gis nga nit kañ ngay am ci moom yaakaar parfois nag nit dina am départ wàññi mais moom moom wax dëgg yàlla mën na bëre mën na mobiliser am na fulla am na fayda ba pare dafa waane. xam hmm. mbër moom bu waanee rek. loolu ci charme làmb lay bokk loolu xale bu dooj. waaw te dafa hmm. dooj macha hmm. allah. ñu koy kii rek encouragé. ba pare buñ koy encouragé mais koy félicité ba pare. di ko wax làmb li ñaan dafa nekk benn moment boo xamante ni am na noo xamante ni boo ko ca defee rek. day kii te moom nag li dal am na ñenn yoo xam ne li leen dal. bu ko dal. Mm-hmm. ndax ki mu tuddee boppam rek champion la. Mm-hmm. tey dafa àgg foo xamante ni tey fu ñu tudd ay mbër dañ ko fa tudd. Mm-hmm. ndax soog ku am jom am fula la am fayda la. ndax ko jiit ci làmb mais tey bu ñëwee dafa ñëw marqué empreinte am tey ba toll fi war a toll. waaw ah, tu tuddeewul cuune daal. kii yoon boppam. Ah, mu am nag ah, koo xamante ni président bi tamit mu nekk xare xare la suñu morom la muy am di jàmm. mu nekk koo xamante ni moom moo bëri écurie bi ba pare moom mooy président bi moom mooy lépp. Euh, hmm. jëriwoon nañ ko nañ dem déglu wax après ñu ñëwaat. ayca kon dem déglu am di te ñëw. Hmm. let's go. waaw Fatima na nga def ba yaa ngi ci jàmm bu baax a Jaxaay Jaxaay Benno man ñu soog a am ñaari at lay soog am. jaxay mbooloo lañ nekkoon nag après si lañ quitté jaxaay mbooloo ñoo créé jaxaay benno bi ko créé nag ñu bëri si nekkoon yëpp ay xale lañ mais démarré nañ saison daaw def ay combat presque ay six combat def nañ ko daaw ren tey ñëw am neuf combat neuf combat yi am nag am nañ ci ay cinq victoire am nañ ci quatre défaite écrit bi nga créé ba léegi nag macha allah xale yi ñu ngi daw di ñëw boo xoolee ñun jaxaay dëkk mais boo xoolee am nañu dëkk Tivaouane Peulh bi si bokk am nañu bokk euh, Alaaji Paate ku mel ni Karmi Alaaji Paate la dëkk am na booy yu dëkk Ñàkkurab am na booy dëkk sax Kër ñu ñëw daw ñëw si écrit bi boobu léegi écrit bi ñu ngi marché. bi ma ko créé nag départ bi métti woon na trop man rek maa si nekkoon maa si nekkoon di si def sama àll di def lépp lu ma mën. lu ma mën ak lu ma mënul yëpp maa ngi def si écurie bi wax dëgg yàlla booy yëpp ñun képp ku ne bi rek defar naa la licence boo leen ko nekk di mbër rek ngemb rek mu xam xale nga ak loo ma de defar fexe naa ba defar la nga am sa licence bopp di bëre si kontaan trop mais écurie daal macha allah ñu ngi ñaan ren moom liñ bëgg mooy li ma waxoon démb la bëgg démb bi ma jëlee nee ko suñu objectif mooy jël silé d'or bu suñu làmb mooy suñu objectif nekk équipe bi ëpp combat ëpp ay victoire moom loolu lañu fas yéene bu soobee yàlla. ñu nag macha allah ndax am na autorité yu baax ñu ngi ciy dugal seen loxo ñoo créé ba léegi nag ay champion génn nañ fi ku mel ni Sokh 2 moom ñëpp xam nañ ko diggante daaw ak presque dafa gën ma mat ay six combats am ci cinq victoire benn défaite ku mel ni Garmi génn na si am na trois combats. def euh, deux victoires ak benn défaite yaa xam benn combat benn victoire la am caat li benn combat benn victoire la yi benn combat benn défaite la am saa ko benn combat benn défaite boy marola benn combat benn défaite tigre benn combat benn défaite mais ñooñu ñëpp amoon défaite avantoon nañu combat ñun ñëpp ndax soog ñu waroon bëri si journée Fallou Ndiaye la waroon bëri par corona bi ñëw yeneen booy yi amoon nañ journée nag mais écrit moom mi ngi dem waaw Baye Djily euh, kañu dellu moom mooy Amdy Thiam mu nekk président écurie Jaxaay euh, Benno mm. mu nekk moom tamit xale dégg nga li mu wax ci li nga xam te ne moom mooy bilan bi mu ne bilan bi bilan bu ko neex parce que écurie bi deux ans fii mm. euh, deux ans la amagum mm. mu nekk xale yoo xam te ne kon ni ñu ko waxee rek ne gis nañ ci xale yoo xam te ne ku ci mel ni soq de ak kii waaye nu mu tudd booy bi dina ñëw dina ñëw mu nekk ak garmi Hmm. waaye nee nañ ñaar ñooñu gis nañ ne amaat nañ sax yeneen combat mais Covid bi kon ni nga doon wax. Hmm. moom moo ko dagg. mu nekk ñaari xale yoo xamante ne am na ci moom yaakaar te buñ leen poussé dinañ dem. Hmm. mu wax na nee na écrit bi képp kuy mbër moom moo lañ daggal licence loolu dégg nga moo ko. loolu moom ban jàngat nga ci am mu nekk xale ba pare ak euh, amul bu mu am ba pare volonté bi yow bu fekkee quatorze mbër nga wala cent mbër ñëpp nga daggal leen licence loolu nan nga ko gisee. Eh, li njëkk mooy Pierre Max Mbargane sama papa boobu maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér dafa wax wax bu am solo soxna Fatima wax bi ñu bari jàppee ko comme comédien mu ne làmb sport dof la waaye ku wér génn ku waaw ku wér génn mu ne parce que mbër mi yor quarante millions ñëw sa kër seet si la doon mbër mu mag yow nga yor cinquante mille mu ñëw nga teral ko ci cinquante mille muy génn nga jox ko paas mu doole ko ci quarante millions nee na loolu du yëfu dof. Mm-hmm. ma ko si mu ne la mais boo wéree rek di nga génn parce que làmb euh, dafa am loo xamante ne daf ci nekk tey kii mm. euh, président bi nga xamante ne xale la euh, yor ay xale yoo xamante ni vraiment moo tax may nangu ni gis nga mag bu ci âge mm. mag ci ci xel mu mooy mag mm. parce que tey boo dirigé na xale yoo xamante ni malgré que soit moo ñii ñoo ko mag ñii moom ñoom ñoo maase ay rakkam ñoo fa nekk wala boo fa compter ñaari nit la fa mag te teewul mu yëkkati ci moyen bi nga xamante ne suñu borom mu ngi ko koy eh, xéwale jàppale ci xale yi wutal leen licence licence boobu mbër mi di am avantage kan la moom mbër mi mm-hmm. bu xa bu amee xaalis fu mu koy yóbbu ci ay mbokkam mm-hmm. président mosoo gis benn président écrit boo xamante ne da ngay dégg mbër mi yëkkati na trente millions wala yëkkati na cinq millions wala yëkkati na quinze millions jox na ko président bi may na ko temps denc na temps wala déet doo ko dégg moo lay wan ni ñoom li ci nekk mooy am nañ amour ci làmb bëgg nañ yëkkati seen drapeau gox ba fépp fu ñu dégg ci làmb dégg leen mu waral mu yëkkati ay moyens boppam def ko loolu nag mu ci def ñu ngi ñaan yàlla bu mu ko rëccu mm. euh, li mu ci bëgg ba defal ko xale yàlla na ci am lu kawe njortam mm. parce que lu mel noonu dañ ko soxla làmb dafa soxla ci moment boo moment bii ku jàppale xale yi te it soxna Fatima ku jàppale mbër mbër rek yow la jàppale ku jàppale mbër rek man la jàppale ku jàppale mbër rek képp kuy amateur làmb wala njoñu làmb moom nga jàppale parce que bu ñu sañoon mbër yëpp am kër bu ñu sañoon mbër yëpp am oto suñu sañoon mbër yëpp nga xamante ni loo leen wax ñu ne teral samay ñaari waajur moo leen tax a jóg ñu defee ko ci ni ñu ko bëggee ñu koy félicité waat bu baax a baax moom président bi di ko wax mu gën a góorgóorlu ñu gën a ñaaxaat xale yi na leen gën a ci boppam di ko wax loolu mu def du ko rëccu benn yoon koom-koom boobu mu yëkkati di ko defal xale yi di leen daggal licence di leen jàppale ci lu bare bare na gën a góorgóorlu nag yoonu ndaw du gaaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. Mhm. Ah, yoonu ndaw du gaaw. Hmm. waaw kon ni nga wax rek gis nga président man jour su may ci président écrit hmm. damay jël euh, comme exemple euh, Abbas Ndoye. Hmm. gis Abbas ni mu ni mu ni mu uufee waa Fass. bañ na ko kenn na du jël benn décision. sa Abbas. Abbas mi ngi xool mbër ci lu mu nekk. Mhm. Abbas day jël xaalisam di ko defal mbër. daggal billet mhm. nga tukki comme la mhm. cas de Lac Rose Abbas Ndoye instant moo yor léppam Gris 2 et tant d'autres Serigne Ndiaye ñoom ñëpp moom sa à dire day gunge mbër bëgg nga dégg daali ñàkk dégg daali moo nekk seul président boo xamante ni chaque jour kooku il est exemplaire. Hmm. du ne nag président yëpp exemplaire lañu. Hmm. mais bu ñu jël exemple parce que dañuy gis Abass Ndoye hmm. ci communication am ci jëfinam ak ci waxinam. Euh, tey kon kii bu nekkee xale di def loolu damay wan ne Abass Ndoye numéro 2. laay gis ndax ku jël xaalisam te xaarul dara si yow. xamul ba xam def ko joxoon ko jox pour mu def ko kooku noonu chapeau à lui. ñu koy remercier moom am di comme ni mu wax rek kon yal bu yàlla tas yaakaar. ndax euh, xale boo yaakaar def ci moom alal la gëm naa ne. ni kooku dina doon kon ni ko waxee benn Balla Gaye wala benn Modou Lo hmm. ndax kenn ku nekk écrit bu nekk léegi loolu ngay ñaan yàlla hmm. chaque jour da nga naan bëgg naa diw génn fi diw génn fi diw génn fi hmm. kon donc ñoom ñooñu ñu xool ñooy exemplaire ku ci mel ni Balla ak Modou Lo kon ñoom it kiiw ñu yoon bi ak mbër yu mag yépp Bombardier ba seen parce que ñooñu ay exemplaire lañ seen comportement seen lépp amaana buñ ñu fi def woon lenn leneen duñ jël exemple si ñoom mais gis nga écrit yëpp koo waxtaan la bëgg naa defar Balla gay wala Modou Lo kon donc am na nañ benn part de responsabilité boo xamante ni. Hmm. mu ngi seen i mbagg ci xale yu ndaw yi moo tax bu ñuy def rek nañ leen gën a yokku parce que am na ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi bëgg a mel la ñu ku ci nekk mu ngi bëgg a mel ni moroomam hmm. euh, li nga wax ci Père Abbas yi ak ki nga xamante ne mooy écrit hmm. président bi ki nga tudd léegi. am euh, Amdi Thiam euh, dafa am loo xamante ne Fatima avant mu nga koy doon danga koy bëgg. Père Abbas Ndoye supporteru Fass la woon. lépp lu mu am Fass a ko ko gënal. tey bu demee ba nekk président écurie Fass dalay wa dalay leer ni ñëwul pour dundee écurie bi mais daa ñëw pour dundal écurie bi. am dimi ci tànk yooyu la taxaw. am na ci beneen président boo xamante ni moo nekk président écurie Dóor Dóoraat te ma jëlee woon ko Cheikh Thiam. moom it dafa njëkk nekk président supporter euh, bu euh, fan si club Zos. jóge fa doon bu Garga Mbossé tey ñu jox ko président écurie Dóor Dóoraat avant avant muy doon loolu bi muy nekk président supporter yi danaan jàppale xale yi di yëkkati ay moyens di leen jox daan yëkkati moo tax keroog bi mu ko jëlee mu ne lu ne dégg naa ko ci làmb mais tey làmb lii la ko fayee tey làmb mun na ko fayee lu gën a lu gën a rëy loolu parce que xolam rafet na boole na mbëri def ñu doon benn te lu mu yor rek xale yi ñoo ko bàyyi ci loxoom mm-hmm. lu xale yi soxla mu taxaw ci suba ngoon guddee bëccëg day dagg yitteem yëpp di jàppale xale yi mm-hmm. rien que te xoolal fi mu dëkk géejawaay la dëkk te ñu mu diriger ñëpp doon président écrit boobu ñu ngi dëkk parcelle moo lay wan ni làmb dafa garaaw làmb dafa doon loo xamante ne day dem ba mu jigi famille lay doon day boole moo tax sport bu demee bay tàqale rek nekkatul sport làmb dafa war di boole ñëpp Balla Gaye Gris Bordeaux bëri nañ fi ba pare Gris dem kër Balla mu yëkkati dàll may dàll boobu Gris Bordeaux koy sol Balla Gaye bëri naag fii euh, Gris Bordeaux may ko montre c'est ça Balla Gaye bëri na fekk Tyson daan ko ba pare ñëw plateau yëkkati yére bu rafet may ko. Mm-hmm. làmb loolu lañ xam. Mm-hmm. lu rafet loolu lañ xam ci loolu lañ dëkk ci loolu lañ war di def muy supporter muy mbër man bëgg naa tey soxna Fatima nekk ci camp bi ma nekk ci camp contrat moo boole sama mbër ak sa mbër nañ ko safal ba mu saf. Mm-hmm. mais bu làmb ji jeexee rek à ce moment moment bi mu jeexee ci moment boobu bu fekkee yow sa mbër moo daan damay jël sama téléphone woo la soxna Fatima vraiment sama jigéen bi maa ngi lay féliciter nangam naa sama dimanche ñëwal invité naa la wala ñëwal ñu waxtaan parce que làmb loolu la xam. Mm. amateur yi ñu baree bare ci làmb noonu la ñuy dundee kon ñu leen di loolu rek laa amoon loo xamante ne mun naa ko ci wax. Mm. di jaajëfal képp koo xamante ne président écrit nga te yaa ngi jàppale mbëri parce que bu ku lim doo juum mais mm. da nga dul matal. parce que bëgguñoo lim ci bàyyi kee mais moo tax ñu joxe exemple ci ñett ñoo xamante ne. ay xale lañ mais làmb rek moo leen tax a jóg. Mhm. Euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci dalal bi. Mhm. kàddu yi rafet na xanaa di wax sa kàddu bu mujj ci da dégg nag <laughs> sa kàddu bu mujj moom laay. ci plateau waaw mais sa kàddu bu mujj ci plateau bi mooy sant ñëpp. Mhm. Euh, gërëm ñëpp euh, di siyaar sama benn xale boo xamante ni sama xarit la daf maa bëgg. Ah, muy sëñ Fallou Ndiaye. sëñ Fallou Ndiaye day def euh, tatouage lay def. mais sama xarit la. Euh, di ko souhaiter joyeux anniversaire mu dund lu bare bare bare bare. sama xarit la borom marché Euh, mu ngi kaas ba. ndeysaan sëñ Fall góol tàppe bi di ko jaajëfal bu baax di ko wax mu gën a góorgóorlu rek yoonu ndaw di baax du gaaw te lépp dina baax incha allah jërëjëf soxna Fatou. waaw mën naa jëlee damay nuyu waa Italie parce que ñoom tamit. door la de xam nga nee naa la waa Italie waxuma la mais diaspora bi ñëpp ah mm. ñoom du ñu bëgg wasaare yàlla xam ne bu ñu wàccee dañuy. jël seen écran bu mag teg kii xam nga rek xool wasaare xool kii rek Fatima ak Ousin te ñooñu amuñu seen fay amaana mm. ñoom dañuy consommer ñu joxuñu leen ko yàlla tax te loolu dañuy dañuy encouragé bu baax a mm. baax a baax mm. ndax ku rek ku ci seetaan jiiri wala nangam i eh, yow Fatima sa série bi nii wala nangam nangam nga xam ne wasaare kon ñun ñëpp benn lañ di ñaan yàlla seytaane ba ñu dox ci diggante bi xam nga di wax rek euh, ñun moom ñun moom happiness daal la ñuy def daal yal nañu yàlla musal si cat di ko bëggee bu baax a baax moom mm. Pata Ba moom mi euh, mu nekk groupe wi neenee ne mm. mu nekk mm. koo xamante ni day sonn ci xale yi ñoom Papa booy jinne ñoom Mathieu ñoom ñëpp tey bu ñu demee ba ba nit ñi xam leen moom ci ci Pata moom jaar na fa parce que moom mbapat da daan tëgg mbapat bu yu mag a mag a mag mm. euh, mi ngi itali nag ndax nee ma lépp lu ma am làmb moom moo ma ko may ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal fi mu nekk yaa defal ko fi jàmm sama xarit boobu nga xamante ni lekkul dara bàyyi ma mm. bapp la jéeri pataa mm. maa ngi remercier bu baax a baax euh, di jox ñëpp euh, dig daje ba prochainement incha allah kàggu suñu caméraman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax yow moom danga koy teg ci yoon daal jaajëf